tel mhm. dem sa kër waajo faat ko ba pare deux jours wala deux temps après ñu doog a xam ne kat du waaj yi donc il faut ñu si bàyyi xel bu baax a baax alors nee naa mhm. ñëwal si li nga xam ni sénégalais yi fu mu toll nii ñu bëri pour man amuñ sax droit taf foto doom ji mhm. et man du may cons tuuti naa trop trop pour conseil yi nga xam ne ñooy famille euh, Nabou Leye mais man soo mal dinaa fexe tout ba ay compte tiktok tiktok ak lépp ma jëm ko tëj mu xaw a parce que man c'est impossible sa yaay nekk d'une situation yi nga na ngay tontu. te ñu ngay mhm. tontu am na ay con yi nga xam ne nii ay dof lañ. boo mhm. moytuwul am na baat boo xam ne bu la ko waxaatee comme ni Ousmane waxee yow mën ngaa xaru ji. Mhm. donc pare guñ fenn ku nekk yaa ngi naan man ne duma takk doomu diw du ma takk doomu diw. te amaana ko ba moytu jabar ji ngay am doomu diw boobu moo ko gën fuuf moo ko gën si ndey gën ko si bàyyi yow mi ngay wax xamoo maanaam sa démb nu mu demee parce que fii mm-hmm. ñëpp dañoo xëy rek judd donc il faut que ñu tey si bu baax baax di nga xam ne nii ñu ngi koy génnee di ko yóbbu si nga xam ne moom mooy doom boobu di doomam joobu Nabou Leye et man mm-hmm. bu def mooy maanaam mu génn affaire TikTok ak affaire réseaux yëpp mu daal di koy teg fële mm-hmm. parce que gëm naa ni amagul benn âge bi nga xam ne nii sax lii nii mën na ko euh, mën mën na mën na ko dégg donc il faut que tamit ay parents am ak ay mbokkam jéem a nekk si wetam psychologiquement même fekkee dafa am dañuy seeti médecin sax pour mën teg si yoon je crois que dina am mais Sénégal amuñ habitude boobu dañuy toog rek la mu ñëw lépp dina jeex. Mm-hmm. donc euh, Momo ñu ngi koy masawu ah, parce que nag euh, ku sañoon. xam nga dañ daan wax naan yaay joo gis bu sañoon bu juree doom doom jaa koy gën. waaye doom ji doom bu sañoon. Mm-hmm. dañuy wax sa yaay lu baax di ko gañ di ko tagg waaye duñ ko waxal euh, ni moo def mhm. euh, dafa nag ñoo xam ne moomoo dañuy fàtte ni dogal bi mi ngi jóge ci suñu boroom mhm. du jóge ci nit mhm. du jóge ci malaaka du jóge ci jinne ci yàlla suñu boroom lay jóge ñun ñëpp mooy xool li ko neex ci li ko neex ci ci ñun mu def ko ci tey jii ñaata at Nabou Leye mi ngi fi di fecc nit ñi bëgg ko mu dem ba benn instant mu dugg ci euh, série yi nit ñi di ko cons di ko bëgg koo gis mu koy supporter ñaata at moom moom ñaata at mu doon ànd ak Aziz Dabala yàllaa ne woon bu Aziz Dabala génne àddina daañu ko téye ak diir bu mu mën a doon nag daañu ko téye soit dañ koy setal wala ñu takkal ko yàllaa ko waxoon mënuñu ci dara dafa bind ci jëwum bii ne loolooy am ci moom comme nit di dundee ba dee te du xam kaso ba na mu mel yàlla nañu ci yàlla boole amiin ni dogalu yàlla bi comme ni ko woykat ba di waxee nattu ak wërsëg du lu jaam di sabab yàqub yàlla la te ku ko neex la koy sotti sa ndab waaw pourquoi nag ñu bëgg a jël doomu jàmbur ji naan ko sa yaay fi def lii sa yaay fi def laa donte donte yaay ju nekk war ngaa sàkk way wu rafet ngir sa njaboot. Mm-hmm. surtout jii moom bu ma dee def dara mu leer ma ni tey jii bu ma bu ma ko defee bu dee lu ñaaw. way wu dul fay la pour sama doom bu dee lu rafet way wu dul sama doom dinaa xoolaat bu baax su may teg sama tànk ak ni ma koy defee mu moo yaay ju nekk dafa war a am lu mu doxalee ci diggante njabootam mm-hmm. ak moom mu koy wax keroog naan la doom ju bëgg yaayam mooy nga noppal sa yaay doom ju bëgg ay waajuram mooy nga noppal sa say waajur waaye tamit yaay joo xamante ni bëgg nga sa doom noppalu ci àddina da nga koy noppal noppal gi mooy du ma def lu ñaaw luñ koy xoolee du ma wax lu ñaaw luñ koy xoolee du ma dugg ci benn tuuxi doona ni dañ ko naan sa yaay fi defoon xam nga nopp dafa mag borom moomoo nit ñi la juddoo nag naka su dul noonu sax nekk ci leesam di dund happiness foog ne doomu yoon la mbedd mi ñoo ko koy wax dégg naa yow dañoo kii dégg naa nàngam non mais franchement. Sénégal nga gis koo xamante ni. ki yaayam ba mu ba maanaam dama lay jox exemple yu différent koo xamante ni bi yaayam di di ko accoucher maanaam day taali ci la ñàkk bakkanam ki mu ki ki nga xamante ni moo ko téye tette ko moo ko yar kooku lay woowee yaay ba foog ni sax mooy yaayam kooku téye ko comme doomam mbedd mi ñoo ko naan ay ndeysaan sa yaay ja nangam ak nangam ba mu xam ne moom ki ko yar yaayam loolu ban traumatisme la indi ci xale bi nga gis koo xamante ni tey yaayam dañ koy téye ci kaso bi amaana sax defut laalewul taqewul même bu defee sax ñoom ci seen jëmmi bopp waa mbedd mi ñoo ko koy nettali waatal day def benn xale bi day def benn tooxi doona wala mu soloo naka su noonu sax ñu ne ñaw yaay jala bandi la wayu la nii la mën a jur loolu la ñu war a bàyyi loolu la ñu war a bàyyi encore une fois parce que nag ku doon sàkk foo juddoo bari na doom yoo xam ne du ñu juddoo fa ñuy juddoo dégg nga ma bu fekkoon yaay sàkku sa yaay ak sa papa ne man fii laa bëgg a juddoo bari na doom yoo xamante ni seeni yaay du ñu leen jur seeni baay du ñu leen jur kon nañuy seetaat bu baax li ñuy def di ko wax kantaan nag tëj ay compte euh, TikTok am ak yooyu noonu c'est très normal moom moom xam nga lu tax Euh, keroog dama dama doon déglu benn live TikTok xam nga ñun fu ne la ñuy seetee information. Mhm. ce qui est normal d'ailleurs euh, may seetaan benn live TikTok benn supposé sëru Aziz Dabala. Mhm. ne moom ci jëmmi boppam moo wax doomu Nabou Leye ne ko bul dugg ci live bi mais dafa naroon dugg tontu te moom moo ko ko tere. est-ce que xam nga donc. lu ñu mën a def ci arrêté ko mu dugg ci réseaux sociaux sax nañ ko def parce que di nga dégg ku ku saaga sa yaay bu defeek bu deful di nga dégg ku sikkal sa yaay bu defeek bu deful di nga dégg sax ku sosal sa yaay ci bu defeek bu deful. da nga dégg ku koy défendre. effectivement défendre bi néew lay doon parce que xam nga lu tax moom moo ci jamono ju ñu toll Sénégal la ñu nekk moom moo da ngay gis mooy li ma la wax sànq ci arrière dama ne la ñaata at la fi euh, nabu lay nii nekk. di fecc nit ñi di ko supporter koo wax mu ne dama koo bëgg ko maanaam ñu néew ñoo ko doon ŋàññ yaa ngi dégg mu dugg ci série ku ne naan mooy sama artiste préféré mooy sama actrice préférée mu tudd ko ci benn meurtre di xool sax ndax moo defam deful Sénégal yépp bëggandoo moom kay kanamam gi boo ko xoolee xam ne reykatu nit la. Ah, boo xoolee jëmmam ji xam ne dafa indice. dafa nangam mais mais euh, xel xel moo ñaaw. waaw. dagguma de. Mhm. commencement bi. Mhm. ma Ousmane toog nañu fii def plateau boo xam ne. Mhm. spécial pour défendre pour na Sénégal yi bàyyi lañ jàmbur. waaw man. bu ma demee kër gi nga xam ni mooy yaayu Aziz. fekk fa beneen xaytam bi nga xam ne nii moom ak Nabou Leye ñu ñooy ànd. je crois que Ndeye Yérim la tudd. Ndeye Yérim waaw. bu mu waxee ma sama bopp. si interview bi. Mhm. man sax xamatuma woon maanaam dama toog saa mooy mel Sénégal dañoo dof wala. Mhm. a jël ay mhm. ki nga xam ne mooy ndeyam di wax pour te dire mënu woon na kàttan di ñëw mais kii moom si ay euh, jafe-jafe yi nga xam ne nii mënu sax ñëw. donc ça veut dire la. mais des fois tamit euh, ni ngi wax. am na ñoo xam ne peut-être yow nu mu mënee am xel. wala Ousmane nu am xel. toog di réfléchir. Mm-hmm. di naan xaar ma xaar yoon. Mm-hmm. am ñoo xam ne fekku leen si. Mm-hmm. am ñoo xam ne aadama lu mu wax naan waaw. dëgg la am ñoo xam ne kenn lu mu wax. naan dëgg la. yow kon su commentaire rek am na boo xam ne dañuy wax naan bu leen déglu bu am ñoo xam ne bu leen déglu. moom mu ni aadama moo ëpp xam-xam Sénégal. <laughs> Adamo lu mu wax noonu la c'est-à-dire kooku est-ce que yow kooku mun keneen mun na wax ba loolu. parce qu'il n'est pas ne dis voilà mais tamit. moo tax man la ku nekk ak sa gis-gis. moo maanaam c'est des fois. Euh, mhm. ku am sa liberté. Mhm. pour wax. Mhm. mais bu mu doon mukk liberté naa xam nga xam nga la moo tax ma tontoo la fi ma la tontoo nii. danga ne ma euh, dama la dama la wax ne la na nañu ko teree réseaux sociaux yi doom ji. li ko waral mooy di nga gis koo xamante ni dina saaga sa yaay te doom ju ci nekk boo sañoon ñuy waxal sa yaay lu baax mooy li ma wax ci début bi. di gis ku ŋàññi sa yaay. di nga gis sax ku ko sosal nga ne ma di nga gis ku ko tagg ku ko defendre ma ne la lu néew lay doon parce que Sénégal la ñu nekk moomoo foofu laa tolloon ma la Sénégal la nekk damay gis koo xamante ne day nekk ci benn bërëb di fa liggéey nit ñi bëgg ko lool maanaam di def lu baax mooy mooy mooy li ñëpp waxandoo nag Sénégal da ngay def téeméeri lu baax benn jour nga juum def def xaaju benn bu bon xaaj ñu bala di la yàq musiba mbelegaan nag di la yekk lu toll ni xeme te doo sañ a mooy li ma la wax man ne la ba ba fi nekkee actrice nekk fi fecckat di ànd ak Aziz Dabala ñépp naan dama koo bëgg dama koo faa dama koo nangam ak nangam te li ci gën a garaaw moom moo euh, damay dégg kuy wax banaan naan <laughs> non mais c'est-à-dire dangay des nga seetaan ñoo xamante ni doo leen jàppee sax ay nit. di ci tudd benn artiste bu mag naan diw moom lay feccal kon kooku noonu du tànn ku bon wala du tànn ku nàngam ak nàngam ça n'a ak li xew pour loolu moom dama koy souligner rek lenn loolu mooy parenthèse la bu may ubbi artiste bu mag boobu noonu mënut mënut a nekk waykat bu mag nekk waykat bu mag ba ràññee raykat nit beeg ku du rey est-ce que ma mënul nekk waykat bu mag waykat bu mag ba xàmmee ku baax ak ku bon c'est impossible. ñaata nit la fi àndal te kenn musu leen a dégg moom mii ñaata nit la àndal di leen feccal te kenn musu koo dégg ak moom moom moom moom Nabou Leye nii ñaata nit la feccal te kenn dégg ci Mali Faro tey ñu dégg ko rek commencé naan diwlu nangam ak nangam nangam ak nangam nañu bàyyi yooyu te ñu sóoraale doomam te ñu sóoraale doomam bu baax a baax ndax tey kii kum ci doon yow doo bëgg sa doom yëg ko bari na ci ñoo xamante ne ñu ngi ci kaso bopp ba tey seeni doom yëguñu ko d'accord merci beaucoup. donc nañ nañ ko sooraale bu baax a baax. voilà d'accord merci beaucoup kàddu yi am na solo mais tamit il faut que des fois tamit euh, ñuy waxante dëgg. Mhm. Euh, man su ma déggee des fois ñu naan euh, Sénégal dëkk jàmm la maintenant je me pose la question est-ce que Sénégal dëkk jàmm la ba léegi Ousmane neexul wax c'est tellement triste triste mais suñu dëkk bi si même pas quinze jours wala même pas une semaine lañ fi rey. Aziz Dabala. ca rey fi ki nga xam ne ni moom mooy waalis anam bu ñaaw baatu rey ñaaw na. Euh, billaay si même semaine bii dañ fi jàpp benn xale bi xam ne ni 15 ans kese la am ñu naan ay xaytam moo ko rey ak. ca ba sànni ko li nga xam ne ni mooy si ay tunnel. Hmm. si même pas 24 heures lañ fi jël borom borom taxi dóor ko li nga xam ne mooy góon bal. ca yàlla. si même pas 24 heures lañ fi gis nga xam ne nii ay mbokk lañ. magum jëmm jàpp xaw ma jarbaatam la xaw ma am 15 ans. moo tamit rey. alors tout le temps on nous dit que oui pays de la borom daggate sax lay wax. allahu mais non après on continue toujours à nous dire Sénégal dëkk jàmm la dëkk jàmm la alors il faut que ñu trouver solution nag pour jéem a xeex li mel te ku si njëkk mooy nguur gi nga xam ne ni ñoom ñoo ñu jiital et moi je peux pas comprendre. je peux pas comprendre que jëye yi fi am yëpp je ne sais pas liggéey yoon moo ngi def liggéeyam mais pour man autorité ñi ni xam ne ay autorité lañ moo xam président wala premier ministre war nañ génn au moins masawu sénégalais yi wala def benn post wala dara sama xalaat laa wax parce que laa si tur ay bakkan ñoo dem. ay doomu Sénégal ñoo dem si ay anam yu ñaaw. bu ñu demee bay faat ay xale bu am 15 ans. kan moo ko faat yàggul dara am na beneen xale boo xam tamit 15 ans la am Pikine mooy ki nga xam ne nii mooy Abdou Aziz mii di wax naan jour bi ñu wax naan euh, ku rey la a rey benn xale bu am 15 ans la ñu rey te ku ko rey 18 ans la am nee te fu ko fekk si ay parents la ko fekk maanaam si biir kër gi la ko fekk jam ko jamaat jamaat après on dit on oh, dit chaque jour oui oh, Sénégal pays de la Teranga oui Sénégal jàmm fi nekk. laïcité oui eh, dëkk dëkk maam Ahmadou Bamba la dëkk El la alors ñoom li ñu liggéey yëpp ni fu mu toll ñu ngi koy yàq. et on parle de la laïcité quand même. arrêtez dëkk bu bon lañ nekk dëkk raykatu nit lañ nekk il faut que ñu wax ko te te tëddee. doy na waar dëkk jëw lañ nekk. te boole ci boole ci dëkk sàcc lañ nekk. boole ci dëkk agression lañ nekk. boole ci ñiy rey. voilà ñëpp nee nañ ay eh, jullit eh, lañ. ñiy rey ñëpp ba léegi nañ tamit ay jullit wala ko ci jullit yi seen bopp mu toll nii sax ñoom ñooy rey yi nga xam ne nii ñoom ñoo nekk si beneen ñoom ñooy nekk si si si si si yeneen si yeneen si yeneen région alors maa ngi reyante ci seen biir voilà boo ñu reyante seen biir mm-hmm. nga nekk si sa biir kër ñu fekk la fa rey la fa nga génn ñu agressé la rey la nga nekk si télé bi di daw oto sax ñu fekk la fa rey la ñaata xoolal démb rek waa ji dawal moo tamit kooku kooku agresseur lañ ko war a tuddee xaw ma ko ni nga tuddee dañ ma baal si kàddu bi mais mënoo nu ngay dawee sax loolu ay nit la donc ñun fan lañ léegi nag insécurité bi fan lañ ko mën a amee mënoo ko am sa kër mënoo ko am si mbedd mi mënoo ko am si tali bi nan la ñu a def fu mu toll nii donc il faut que tamit ñu bàyyi si sa xel bu baax a baax fu mu toll nii euh, bu ñu waxee à chaque fois bu fekkee.